suukaar dina ñëwaat dafa fekk nga mun mu ne nañ ko xalaatal est-ce que moom li wax nii toog na ak jabar ji waxtaan lu tax jabar ji déggalaatuñu ko fekkee def na lu la kon moom xam na ci tuuti dafay xaar lu ko yokkal bu mer nag ba tey de comme que yaayam mu ngee dund mu ne te say mbokk la nañ waxtaan loo gis xam na xàppoo waaye bu mu yàkkamti ba dégg chômage gi rek def na ko si noonu na toogaat mbokk yi ba tey comme que dem nañ ci ba ci ñaari bant loolu tey de loolu du ñaari fan de <laughs> na tey lu ba tey rek waxtaan jabar ji lu tax déggalatul ko su ko naka nangoo waxtaan moom dina ko waxal lu tax mu bañal ko balaa moo yàkkanti waaye am naa yaakaar ne am na lu tax su fexee ba lijjanti loola dana xam fi moo jaar waaye su meree def naka su noonu la because si wax ji maa ngi dégg nga ne léegi mën a bëgg naa dem uti keneen sax te mbokk yi lu tax ñu bañ fekkee bañ na mu uti keneen te lay nekk baaxul lu tax mu bon nañu seet li tax la baaxoon wecceeku suñ teeloon laaj lu tax mu wecceeku xam na lu ko war boo gisee dara dara ko tax dara tax man dal li ma ñaan moy yalla na toog la ko naqadi saafaraw bi ko bam neexa yewuñ kon ci biir lolu yalla neexa neexaat dafa rusloo jigéeni gambie yëpp rusloo jigéeni afrika yep rusloo jigéeni aduna yëpp ndax ñun jigéen fu ñu tok dañoo wax ni goor yi sonal goor yi sonal waye legi waxatu ne goor yi ñu sonal be goor gi bind na ne jabaram ko sonal lolu daw na yaram ma ngi wax xale bu bi ne na jàpp jëkkëram na seet mbokka boobu bu mu ko tas mu sëyeeg jëkkëram may wax yaayi xale bu góor bi ne na baalal doomam ndax tey doomam a ngee dundee lu métti waaye mënut mënut a def dara dig bëggul yaayam mere léegi yaay ji si boppam moom man moom lay waxal na xoolaat doom ji na seetaat waxalaat doro bi fàttali ko jàngal ko ne ko séyalal suma doom ci yàlla tax dig man maa la takka maa la ko utal indi dig xale bu góor bi tey su buggee takka jabar du ko mun ndax yaayam képp bëggam moom la ko jox te yaayam nanguwul mu takka jabar te ak njureen si doom dafa métti torop maa ngi wax ba tey goro bi ne ko ku nekk bugg ngaa goro bu nekk bugg ngaa am sët bu baax te sëy bu rafet mooy indi doom bu baax di wax xale bu góor bi ne ba tey na naxante yaayam waaye nag maa ngi wax xale bu jigéen bii su toogee nag ba am wujja wujja bi ñëw mu mu jéem na dina defar fekk paase na ndax kon su defaree waa ji du ko saf kon man lii laa am lu ma ci def li ma ci wax di gën a edda ndaw si rek na seeyal waa ji te yàlla tax na seet kóllëre koo ko jox jërëjëf mel ni nag tey mbokk yi lii la ñu waxtu mi seen programme yi jamono ji waaye nag di leen fàttali rek ne seen tawati xol yi ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu dee yónnee leetari xol ci jamono ji email bi jamono ji la at yahoo dot com jamono ji at yahoo dot com ñi nga xam ne ba tey rek téléphone moo leen gën a yomba dama ne call leen ma rek si 36 555 32 36 555 32 ba tey rek mun ngeen maa call ci 26 20 12 345 2012345 di jaajëfal nag uh, suma toma yaay bi nga xam ne moo doon sëy si bés bu ay bi lu ñu génn muy mam faatu baayo wala boo ko mam faatu mu ndaw foofu ca suñ ci alaaji waaye tamit uh, di jaajëfal tamit ndokkale bu baax ki nga xam ne suma mag la suma doom mi baajan la te moom tamit mu doon sëy rek uh, ci bésu ay yi ñu génn ni muy abi yoose camara wala boo ko abi camara moom tamit maa ngi ko ndokkale di leen ñaanal ñoom ñëpp sëy bu barke boo koy fii la ñoo dal di tàggatoo di leen ñaanal nag women celebration bu neexa neexa ne ba beneen bés baa ci waxtu bi Música من الخوف من الأموال والأنفس ثمرات وبشر وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم You're gonna see.